Euh, tey moo nekk euh, lundi euh, le 8 mai 2023 8 mai 2023 lundi le premier mai euh, góor production mo woote won tegaloon bari 1 million de francs CFA fan la xewoon arène Adrien Senghor bu Grand Yoff arène Adrien Senghor bu Grand Yoff la xewe woon kan moko ko mujjoon a jël Séléminé moo ko jël ci turbo bu Tiwaawoon

Eh, bi eh, parrain bi di eh, waxtan deug nañu amateur et supporter yi di yuuxu té franchement euh du taru lamb waaw xam nga lamb simple bariwul li muy am promoteur bariwul li muy am du moins sponsor donc fek promoteur bi day mise hmm mu teg di parier parce que pari la bu amateur wuyusoo wuyusee avantage la avantage am mais bu amateur yi ñëwul euh, franchement kon day risque perte donc boo amee chance ba am sponsor voilà sinon mu am parrain euh, là c'est à saluer parrain bi ben cinq mille wala benn dix mille ba nga xamante ne dañ koy accordel pour mu ñëw waxtaan rek jàll franchement lolu yakana né franchement neex na neex supporter waaw lolu dal euh, lañ fa amone constat côté arbitrage aussi franchement am na liñ ci bëgg a kii rek euh diganté Sen kumpa ak tir boobu Tiwaawoon euh, parce que làmb ji euh, dafa amone litige d'après euh, nit ñi mais arbitre dafa joxe victoire kan la joxone victoire tir boo la jox victoire arbitre bimu joxe joxee tir victoire bi et franchement tir boo dem na sax ba ci ci mukaayam ba commencé di lagat à notre grande surprise ñu gis arbitre bi wote wat ne pour ñu wat te gisuñu fenn fi nga xamantene sen kuma bind na fa recours te dañu jàpp Euh, combat bu amee litige mbër mi nga xamante ne moom jàpp lañ jàpp ne dañ ko xeex wala sinon dañ ko atiñaakal mbër moomu dafa war a bind recours mais gisuñu ñu fu mu bindee recours waxuñu nag bindul recours mais gisuñu fu mu bindee recours te donc dañu jàpp ne bala ñu bëriwaat dañoo waroon a bind recours ba victoire bi ñu kase ko kase verdict bi bu fekkee dañuy maintenir victoire bi baax na bu fekkee dañuy war a bëriwaat aussi ñu bërat wala sinu fekkee ne jox selemen ne victoire euh, euh, seen combat victoire bi ñu mën a xam mais parce que d'habitude

et franchement lepp dal ala dawme ben, euh, le seul constat buñ fa buñ dem entre Libidor bu l'Alliance euh, euh, Alliance Libidor Alliance parce que Alliance ak Libidor dañu bëri cinq minutes temps règlement temps bi ñu pause mu pause encore cinq minutes non cinq minutes encore ñu biir cinq minutes dernières minutes nak fofu la ñaar avertissement ku euh, temps bi jeex bu temps bi jeexee avertissement yi dañu tolloo normalement foofu dañoo war a dem prolongation dem nañu prolongation nag bu ñu prolongation aussi ben 3 euh, minutes yi euh, prolongation 3 minutes la xam tax ndax 3 minutes jot na jee xam déet mais arbitre sifflé na fin ba pare dem constituant jugem ñëw yëkkati loxo alliance Diène te man à ma part personnelle dama jàpp ne avant muy sifflé fin bi parce que normalement bu ñu bëree temps réglementaire bu jeexee rek ba prolongation bi jeex donc kon match lañu wara wax té lamb sam amatul match donc pour bañ nak mu nek match nul bañ avant temps avant prolongation bi di jeex fofu waro am ko am avertissement lamb ji jeex ben yoon ñu disqualifier kenn ku mu jeex mais dafa bayyi be euh, temps rek temps prolongation bi jeex mu soufflé ba parce que ko les deux juges ba parce que ko loxo audience jeen man ci sama xam-xam bu gàtt ci lamb japp naa ne warul demee noonu ni mu waroon a demee avant prolongation bi di jeex waroon na xool au moins su fekkente ne Libidor mo mo moo mo moo gën a ëpp pas euh, li mu deful passivité mais mu jox ko avertissement yow te loxo alliance Diène parce que amna trois avertissement donc te trois avertissement disqualification la man loolu laa jàpp ne loolu wara def mais da bay bay prolongation bi jeex muy soko ko con ñaari juge ba pare yëkkati lox alliance Diène man dama japp ne bu temps règlement bi jeexé prolongation bi jeex rek don cela veut dire que kon la ma di jeex na te en match en lutte simple waratul am match nul donc kon fofu machine nul la waroon souhaité amatul donc au lieu que mu xaar ba temps bi jeex dafa waroon a jox avertissement kenn ci ñaari mbëri ba pare yëkkate keneen ka parce que foofu du avertissement la woon ku nekk donc pour keneen ka am trois avertissement pour mën ko disqualifier loolu la waroon def avant temps bi jeex loolu moo nekkoon daal franchement li nga xamante ne eh, moom lañ leen indiloon euh, euh, bi entre ñaari lamb yi weesu euh, franchement lamb dimanche bi le set bi ngañ seen moo ko mujjee jël ci ki ñuy wax alliance Diène alliance Diène nag yaakaar naa suma ko côté ñaaxar la dëkk ñu ñëwaleen ci annonce lamb yi annonce lamb Njira mooy euh, ñëw Makakawoon le 20 mai tegal mbëri 1 million de francs CFA le 28 mai terrain gi Cang Cang production avec une mise de 3 millions euh, Diofior euh, Diofior ah Diofior Daaru Mangi ah hein. ADD Diofior daru Mangi du 26 au 29 mai avec une mise de 16 bœufs et 200 000 francs CFA waaw ñu jóge foofu dem drapeau chef de l'État drapeau chef de l'État franchement euh, c'est du 13 ans. Euh, le 13 mai, là, euh, drapeau chef de l'État, chef de l'État à Saint-Louis la donne le 13 mai à Saint-Louis du 12 13 à 14 mai Saint-Louis vendredi lay commencé samedi et dimanche 12 13 à 14 mai à Saint-Louis Le franchement il faut amateur amateurs tous les acteurs de la lip en général nous pour nous oui parce que jour bobu nonu benn lamb au Sénégal sur le drapeau chef de l'État samedi 20 mai à Kalom une solution hein. Il une solution famille mo woote samedi le 20 mai à Kalom avec une mise de 1 million 300 000 francs en trois catégories léger 300 000 pour le lourd 1 million dimanche 21 mai euh, dimanche 21 euh, mai euh, du terrain dimanche 21 mai en Grand Yoff à hein, production avec une mise de 1 million euh, toujours grande Production le 28 mai à avec une mise de 1 million. La Mine TV, de soit le 4 juillet, le 4 juin, la Mine TV, le 4 juin à, Kabangoy, avec une mise de 1 million. ginnaaw bi mu euh, dans son fief a million de francs CFA dimanche le 4 juin terrain galgué toujours, une première pour au terrain galgué, une mise de 5 millions avec Nago Production. Donc c'est une date à ne pas rater. Euh, dimanche, le 4 juin, à euh, terrain galgué avec une mise de 5 millions. C'est une première au terrain galgué. Franchement, je le me rappelle, aussi, le rappelle. Man. Euh, Ndoubab, hein? Euh, Ndoubab Joal, Ndoubab Joal, samedi 10 juin avec une mise de 3 millions et Nyari Cheveux. ñaari ñaari face, ñaar 7 millions ak ñaari face, Ndoubab ah, le samedi le 10 juin euh, les dimanche le 25 juin Grand Yoff avec une mise de 1 million Amalda le 2 juillet euh, Grand Yoff avec une mise de 1 million encore ñu pour pour euh, Yassin Tessar le 9 juillet le 9 juillet 2023 Grand Yoff avec une mise de 1 million nous encore le 23 juin Grand Yoff juillet le 23 juillet Amat Grand Yoff avec une mise de 1 million association Adrien Senghor nag ñëw tej lambaji le 30 juillet euh, aux arènes Adrien Senghor de Grand avec une mise de 1 million de francs CFA donc lolu moo nekkoon seen annonce yi loolu moo aussi seen émission Njoktoor ñu ñaan les téléspectateurs comme ni ñu koy défé chaque jour rek gis nañu abonné franchement di leen di féliciter ci abonné yi mais di leen ñaxat rek abonné du doy pour ñinga nga ñu ngi safo di falé Mbine TV ngén yok abonné di aimer di partager di liker vidéo bo jot rek mëna nga ko partager sa morom ngay mën ko visionner loolu mooy euh, xorom bi franchement bokk na ci li nga xamante ne mooy euh, neexal émission yi parce que euh, nit aussi buy naan ndox mu tàng yaakaar naa ne sukar saa tax waaw ndox mu tàng bu amul sukar neexul naan donc sukar si mooy abonné aimer partager waaw Mbine Yalane TV franchement ci kaw ca kanam waaw acca seen émission Njoktoor la woon avec Ndiak Albert beneen